waa xam nga Touba loolu mooy problème bi wax naa ko Touba actuellement waruñu wax ay budget de 4 milliards di collecte ñu naan am nañ 1 milliard 1 milliard 400 millions 2 millions 2 milliards. donc yi normalement budget commune bi bu fekkoon ne li ñuy fayoo ci yeneen wiil yi la ñuy fay budget mi ngi ci 7 à 8 milliards yoo xam ne bu ñu ko defee parce que jëlal exemple màggalu Touba rek lu mu néew néew néew am na 300. jaaykat yu ñëw trois cent mille jaaykat yu ñëw di jaay si mais imaginel ba benn benn place ci àddina buy jaay ci dëkk boo xam ne commune bi dana ci am un franc amul te trois cent mille képp trois cent mille ta jaaykat yoo xam ne kenn ko ne fay na benn vingt mille franc rek sa sa c'est six milliards lay doon loolu suñu ko defoon chaque année ñaari at ñett at mu nekk bu fekkoon ne commune bi mi ngi collecté ci daal màggal ci secteur boobu six milliards di def ba impôt fisc euh, locaux bi nga xam ne nii war nañ ko fey bu ñu ko doon fay lu mu néew néew dana rapporter un milliard un milliard deux cent millions par année ça fait ñaar yooyu rek c'est sept milliards donc te ñaar yooyu commune bi presque mën naa ne la du ci collecter cent millions wala cent dix millions par année donc loolu moo tax nag ñu doon sensibiliser conseil municipal bi toog dañ ci waxtaan bi ci sensibiliser chef de village yi ak population bi wane ne war nañu mën a tër tëgg waxtaan ak kilifa yi nga xam ne parce que nag dafay concerner ay kilifa yoo xam ne day euh, il faut que ñu waxtaan ak ñoom ñu def ay commission wala am ndigal dem ci ñoom waxtaan ak ñoom xamante leen ne ne leen kat dafa am luy war commune bi dafa am lu population bi soxla te droit yi dafa bokk ci li nga xam ne nii dafa dañ koy dañ ciy jëlee dara pour man koo def ay infrastructure yoo xam ne nii askan wi danañ ko mën a bénéficier ndax état mi ngi fiy def li man mi ngi mi ngi góorgóorlu mu ngi fi indi ay goudron mi ngi nii màggal gi bi mu jàllee da ngeen li ministère de l'intérieur wax am na ñaari problème yu fi xew muy ñaari ndox ndox mi taa pour taw bi muy eau pluviale bi ak eau évacuation bi eau usée bi ñaar yooyu yëpp président jël na ci ay matuwaay yu wér-wér ndax bi màggal gi jàllee 15 jours rek yónnee na fi ay kenn ku ci nekk ministère concerné ba saisir na la nga indi fi sa sa sa équipe technique nga ñëw fii di def étude ànd ko ak commune bi. comme que nag ndimbal na ci fekk looxal borom banque africaine de développement ak état Sénégal ak bar euh, ak euh, banque mondiale euh, PACASEN bi génne nañ jox nañ ñu neuf milliards pour loolu état bi mi ngi def effort yi il faut aussi ndimbal na ci fekk loxol borom yoo góor dëkk bi aussi ñu góor góorlu ba liñ war a am ci ci ci ci recette bi ñu am ko boole ko mën ko liggéey muy loo xam ne ni dana jëriñ askan wi